Bonjour, comment ça va et la santé Bonjour, comment ça va et comment va la santé ah, mbokk Koungheul ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaare Euh, tey nag ñu ñëw indi leen lu bees lu xam ne mu ngi fii ci Koungheul war a ubbi ay buntam muy cabinet médical du Bambouk mu nekk cabinet boo xam ne lépp lu ñun uti ci Dakar di ko uti Kaolack jartul ñu dem fii la ñu ñëw fekk fii ci Koungheul mu nekk fii ci Koungheul ville nag la nekk muy cabinet boo xam ne lépp loo xam ne daal dañ koy soxla ci wàllu faj dañ ko fekk ay doomu Koungheul nag ñoo ko fi ubbi ñoom ñoo nekk ci biir xam naa ñun dañu ñëw def visite pour seet leen ah ñu ñëw fekk fii koo xam ne duñ ko présenté ci Koungheul muy Ngari Ngari Niang nag moom vraiment jàmbaar la nekk ko xam ne tey mu ngi ci Bambouk santé di liggéey ci côté santé ànd ak ñoom ubbi benn clinique Ngari kàddu bu njëkk bi ñu ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum mbokku Koungheul mm. salaamaaleykum mbokku àdduna. Mm. comme ni nga ko waxee rek sama présentement la Ngari Niang je suis mm-hmm. tey nag di leen dalal ci cabinet médical du Bambouk. waaw ñu am ci gan am solo muy PDG Matar vraiment ngay def liggéey bu mucc ayib mbir mi côté santé tey lii dafa métti woon dañoon daw ba Kaffrine Kaolack Dakar di uti lu mel nii mhm. tey ngeen ñëw yombalal ko askan bi cabinet bi nekk fii ci biir Koungheul nekk ci këru Koungheul nag mhm. mooy biir Koungheul bi ñu ci a wax balaa ñu dugg ci biir waaw dañuy sant yàlla rek vraiment te li ñuy faral di wax chaque instant nit ki boo nekkee ci dëkk am na âge booy toll da ngay wax ne lan la ma dëkk bi defal doo ko laaj mais au cas lan nga war a defal waa dëkk bi c'est pour cela que moo indi initiative bi ñu ne pour pourquoi pas Koungheul am cabinet médical boo xam ne lép loo xam ne dañ koy jéggaani di ko dem ba Kaffrine di ko dem ba Kaolack ñu mën ko am suñu biir moo tax euh, lii tey. ñu gis ne ay doomu mm-hmm, mm-hmm. de Koungheul ño ñoo def lii waaw ñu mel ni man ñoom ñoo taxawal lu mel ni vraiment te ay doomi Koungheul dong ciy liggéey aussi waaw moo tax fexe yombalal faj eh, waa Koungheul waaw parce que initiative bu ñu ne cabinet médical domaine médical bu ñu ko waxee santé moo tax wérgu yaramu doomu aadama yi rawatina waa Koungheul moo tax lii tey parce que boo doon seet lu bëri da ko doon jéggaani <laughs> te gis nañ ne Koungheul li muy rëy rëy benn district sanitaire moo fi am donc am na yoo xam ne nii pour ñu am ko il fallait ñu dem ba Kaolack wala ñu dem ba Kaffrine mais yàlla def na bu amee xelaat bu rafet bu nit ñi mën ne yàlla may leen yenn sutura yi ñu mun ko def du ñu def lu rafetlu ko moo tax daal tey daal ñu ngi lay wax moo tax dalal ak jàmm waaw. atia waaw ba mbokk ñun voilà on va démarrer juste c'est c'est ça l'accueil bi fi mën di ñëw tamit fii ngay njëkkee voilà voilà ci lañ lay accueillir ak réew neex waxtaan ak yow dalal la fexe de telle sorte que yow lépp li nga xam ne ni mooy sa souci ñu wàcce ko booy seet fii mooy accueil bi booy seet fii lay malade bi ñu njëkkee premier contact ba ak euh, personnel bi nga xam ne ñoo fi liggéey fii la njëkkee fii dañ lay enregistré fii dañ lay laajee fan nga jëm lan nga bëgg waxtaan bi yëpp maam fii lay amee après nag fi la defee tamit orientation yi par rapport ak différents voilà booy seet matériel yaa ngi nii tout est disponible voilà lépp a ngi sur place voilà voilà fii daal mooy bureau en même temps secrétariat bi en même temps moom la ñuy def comme genre accueil boo seetloo siège yi yaa ngi c'est moo tax voilà akay baa ngi nii daal waaw waaw akay baa ngi nii consultation bi nga xam ne nii bii mooy bureau docteur bi docteur bi nga xam ne moo fi nekk mooy bureau consultation xam naa dañ fiy ñëw après ñu ñu jéem a gis docteur waxtaan ak buñ paree si foofu na beneen suivi euh, bureau boo xam ne nii pour consultation secondaire la c'est-à-dire tey sage-femme bi fii mooy bureau bu amee beneen spécialiste bi fi nekk fii mooy bureau c'est juste pour l'instant pour un premier coup ñu defaat mooy bureau consultation niveau fii moom mën nañ dugg ma woon la quelques détails yi nga xam ne moom lañ ci boo seet bureau baa ngi nii avec yoo xam ne nii mooy loolu gis nga vraiment rafet na yaa ngi na am na am na li nga xam ne mooy hygiène am na confort aussi fii ba tey wax naa la ci diggante bi ne léegi day am sage-femme lii boo ko gisee moom mooy table d'accouchement la te de nouvelle génération la booy set yi nga xam ne nii moo mujj moom lañu def moom lañ prévoir wala pour l'instant actuellement am na aussi tamit salle de soins am na aussi mhm. salle de spécialisation mooy surveillance bi nga xam ne de soins mawan la fii mooy salle de soins bi fii lépp li nga xam ne soins la fii lañ koy war a defee en même temps moom moo am pharmacie bi ci biir waaw mooy xam ne médicament d'urgence yi xam ne moom lañ ko nar a def incha allah salle baa ngi nii tey booy seet daanaka matériel yi nga xam ne dañ ko fiy soxla lu ci ëpp mu ngi ci lampe bi da nga koy faral di gis si hôpital yi mhm. voilà léegi naa la ci wan lu juste essayer de mettre euh, waa Koungheul lépp li nga xam ne ni ñoom dañ koy jéggaani ñu fexe ba am ko fii incha allah looloo looloo waral lii tey saabu de son baa ngi nii booy seet tamit euh, li nga gis nii ci kaw ça va englober lépp li nga xam ne nii wàllu médicament la nga xam ne clinique dañ koy utiliser muy des médicaments d'urgence yi nga xam ne nii tey boo fi amee surveillance moom nga war a def. bu koo koy xool tamit a lépp luñ ci war a def fii lañ ko war a arrangé incha allah sa leçon yi bu ñu ko waxee mooy lii tamit matériel yaa ngi nii yëpp pare na. pour l'instant voilà démarrage moo des voilà tu loolu daal moo fi nekk loo xam ne nii bëgg nañ ko war waa foofu c'est pour les malaat et les aussi waaw waaw veillé nañ si bu baax nga xam ne day am hygiène boo xam ne nii macha fii daal Matar juste pour soulager la population Koungeloise par rapport à leur souci de santé c'est juste moo tax ñu ñu am idée bi def ko ci voilà. ok lii boo gisee ñu def ko général fii gis nañ ne Koungheul ak coupure courant beeg yooyu stable c'est pour cela que boo xam ne dina jàpp ci courant bi mm-hmm. lii moo ko gisee mooy sario chariot bi nag chariot mobile la day def lépp li nga xam ne ni matériel fii yuñ soxla rek. da koy dugal si juste pour faciliter le déplacement day jógee fii dem fee jógee fii dem mais lépp li xam ne da koy soxla biir hôpital boo seetloo il est muni de deux poubelles ñaar yëpp mu ngi nii li nga xam ne da koy soxla moom nga koy kii quoi. salle de surveillance salle de surveillance bi ñu koy wax bu amee malade boo xam ne hospitalier wala boo xam ne da nga ko war a surveiller fii lañ koy dugal tey booy seet mun nga yegg si si biir ñu wan la niñ ko équipier boo gisee lii nga xam ne bon la surveillance ici voilà mu ngi nii voilà c'est des matériels de bon qualité voilà ñaari box la fu mu toll nii on va demander juste pour surveillance la malade nga xam ne ñëw nañ fi soxla ñu surveiller leen du genre fii lañ koy fii koy faral di defee voilà moo nekk nii di nga même sérieux bi nga gisoon ci biti moo nekkaat nii parce que juste bii day jege malade yi à chaque fois boo ñëwee li ngay soxla yu bëri ci tiroir yi lay nekk boo seetloo Hmm? Eh, kii ñëw leen ci Segodaaw kii yeeg tout ça. non loolu juste dañ ko dañoo lancé ko nii rek c'est juste mais après yow dinañ defaat beneen entretien boo xam ne nii mais daal li ma lay wax mooy on va faire de telle sorte que Koungheul dañ que objectif bi loolu la woon. Ah, pour nit ñi seen bopp nit ñi bañ a mën a jéggaani dara pour seen problème santé lépp loo xam ne mën nañ ko pour def ko pour wàllu faj. moo mm-hmm. la fara incha allah ici voilà. bi mooy bureau consultation bi mm-hmm. bi nga xam ne nii moo fi nekk ci cabinet bi tey. te bu ñëwee les malades yoo xam ne ni trier nañ leen fii fii dañu ñëw xaar ko pour mu bañ a am désordre affaire yooyu c'est pour cela bu ñu xool ñu xool ndax waajal ñu salaamaaleykum docteur <laughs> voilà docteur Gningue la ah, vraiment dañu ci ngaar yi mu defal ñu visite guidée ñu war a mujjee ci yow ah, ok waaw merci beaucoup Matar déjà pour interview bi ngi sant yàlla bu baax a baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu euh, képp kuy doom Koungheul ak ñi nga xamante ni ñoo dëkkee di ci jiital nuyoo bi kilifa diine yi ak tamit kilifa aada yi waaw di sant yàlla beneen ñoom rek tey bu ñu yàlla dimbalee ñu dem ba toll ci benn étape boo xamante ne nii eh, xalaat nañu taxawal lu mel nii ci ci biir Koungheul waaw ñu ngi si sant yàlla parce que lu waral loolu mooy am na jamono yu ñu fi nekkoon nekk ay xale yu ndaw waaw suñuy mag suñuy papa dañu tette dugal ñu école ñu nekk fa di jàng di gis tamit situation yi nga xam ne ñoo moo ne si dëkk bi ñu amoon aussi mbëbët boo xam nii depuis boobu ñu ngi koy am yàlla def yàlla dañu dimbali duñu suturaal ñuy jàng ba yàlla may ñu mën a dem université ñu demee université aussi yàlla orienté ñu si li nga xamante ne nii mooy lu jëm ci wàllu faj waaw ñu amoon si ambition bu baax a baax suñu ambition principal nag nekkoon am xam-xam bu jëm ci wàllu faj ñëw ci suñu dëkk jëriñoo ko ak suñu waa dëkk voilà loolu taxoon ñu nekk si njàng mi yàlla dimbali ñu quand même suturaal ñu bu baax ba jàng mi dem nañ ci ba am fuñ ci toll ñu wël bi di ko ne ah, jot nag ñu war a dellusiwaat fi nga xam ne foofu lañu dëkk taxawal fa li nga xamante ne nii njort nañ ñi war na mën a nekk suñu participation ci li nga xam ne moo war a doxal réew mi voilà léegi nag loolu moo sabablu ñu dugg ci ay procédure ak tamit ñi nga xamante ne nii ñëpp ñu ngi ciy jàppale pour mu mën a taxaw ñuy ay doomu Koungheul yoo xamante ne ni ñoom Koungheul rek moo leen ñor ak liy doxal réew réew mi en particulièrement nag liy doxal Koungheul voilà ñu taxawuñu si quand même bu baax a baax a baax ba yàlla dimbali ñu ñu mën a taxawal lii ak ñi ci àndal ñëpp vraiment ñu nekk ñoo xam ne dañoo bokk gis-gis ci côté boobu gëm ni suñu réew li koy doxal mooy ñun ñi nga xamante ne nii ñoo nekk ay jeunes ñoo war a taxaw pour lu mën a doxal réew mi waaye tamit bu ñu ko waree doxal aussi waruñ toog rek di xaar état def si ñun dara ndax état li mu war a def si ñun jot nañ def na ko ba pare mooy indil ñu cadre de vie bu ñu mën a wutee xam-xam si jàmm ak salaam mu wutal ñu ay prof yi muy fay ñuy jàngal ba def suñu xam-xam di si des mooy ñun tamit ñu war a def suñu wàll ci mbir yi mooy fexe ba li ñu xam doomi réew mi jëriñoo te à la base loolu moo ñu dugal ci médecine ndax boo fàttalikoo année bu ñu am bac amoon nañ mention boo xam ne permettre woon nañu ñu dem jàngi à l'extérieur ñu proposé ay formation yoo xamante ne nii c'était pas orienté vers la médecine donc j'ai refusé carrément parce que j'avais opté pour faire la médecine te loolu moo ma woon Sénégal tamit ma dem Cheikh Anta rayante fa ak samay morom ci médecine bi yàlla dimbali ñu ba am ci quand même suñu diplôme ñu doon wut di ñaan yàlla tamit mu yokk quand même waaw. tey waaw alhamdulilah euh, cabinet bi xam naa ni cabinet la commencé waaye ñu ngi ñaan yàlla mu dem ba képp ku soxla lépp lu mu mën soxla pour faju mu dem ba bu ko bu fi yegsee mu mën ko mu mën si jot waaye wàññi gu ne quand benn lay tàmbalee te ñun dañoo gëm ni mbir yi yàkkamti du ko matal lu nekk rek dangay tàmbalee fi nga war a tàmbalee ñaan yàlla mu màgg ba lépp luñ ci séntu ñu mën ko am actuellement cabinet bi incha allah bëgg nañ ci buñ ko tàmbalee lépp lu jëm ci wàllu consultation kër docteur nga xamante ne nii mooy consultation général bëgg nañ ko di ko fi def muy consultation saytu ku fi ñëw ñu seet sa yaram xool say jàmbat xool tamit feebar boo munti am ñu jéem a xool liñ ci mën ñu def ko ci bu aajoowee aussi faj boo xamante ne nii dafay laaj xarañteef bu ëpp ñu xool nu ñuy Euh, def ba tamit ñi nga xam ne ñoo ci war a jot ñu jot ci pour mën ci taxaw ba saafara mën a am alaa kulli aussi du ñànk dinañ ci boole aussi comme dëkk bi tamit soxla nañ ay spécialiste du ñànk tamit ñu organiser ci aussi ay ay ay bés yoo xamante ne ni dinañ fexe ba ñi nga xam ni ay spécialiste leen jugee ci yeneen i dëkk ñu xool nu ñuy organiser woo ba ñu mën a dimbali waa dëkk bi ba nga xamante nii au lieu que ñoom ñuy dem ba ci yeneen i bërëb di fa dem pour faju ji nga xam ne ñoom dinañ mën a ñee ñoom dinañ mën a ñëw fekk si leen ba fii ñu mën fi def ay consultation nga xamante ne nii dina gën a wàññil population bi coono bi ñuy faral di daj déjà pour dem wuti ji rendez-vous rek ci yeneen spécialiste ak tamit coono bi ñuy daj ci yeneen hôpital yi pour mën a pour mën a jot ci faju bi ci gàttal daal li ñu gën a soxal mooy faj bi gën a jege population bi lépp loo xam ne waaw bon euh, may tàmbalee rek mooy déjà consultation générale bi ñuy faral di def ci hôpital yi mm-hmm. dina fi am muy consultation yi nga xamante ne ni médecin généraliste yi ñoo koy def mm-hmm. pour képp loolu moom ça concerne presque ñëpp waaye tamit si consultation yi des fois am ñoo xamante ne nii seen con seen faj dina laaj spécialiste. Mm-hmm. donc ci côté boobu bëgg nañ di fi indi aussi ñi nga xamante ne nii lu jëm ci wàllu tuur ndox ak ay cëram euh, di ñoom dañ ciy yëngu muy urologue yi bëgg nañ aussi fexe ba euh, indi aussi ñi nga xamante ne nii ci wàllu jigéen ñi muy gynécologue sage-femme yi pour ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañuy soxla ay visite ñu mën a am possibilité aussi di fi passe seen ay visite ala ak yeneen yeneen spécialité aussi incha allah bëgg nañ ci taxaw ba mu mën ba fi am incha allah dina am aussi ci wàllu analyse aussi dinañ fexe aussi jàppandal analyse yoo xamante ni yu bari yi nga xam ne d'habitude dinañ koy faral di soxla ci dëkk bi ci eh, ñi nga xam ne dañuy soxlaa faju tamit bëgg nañ ko fee jàppandal ba nga xamante ne ni ku ko soxla tamit dina dina mën a disponible ci moom incha allah. gis ne ay matériels yu mucc ayib yoo xamante ni ay tànneeg wala fële na mu gis. dañuy ci saa yi loolu tamit nekk loo xamante ni ku ku gis ne xam naa ku ku ku gis cabinet bi dèjà dinga xam ni mbiru Koungheul la parce que dèjà turu cabinet bi Koungheul lañ ko tuddee Bambouck moom ku ko dégg xam ni Koungheul lay lay lay undu ñi fiy liggéey tamit boo xoolee ba xool ñun ñoo nekkandoo ay ndaw ne ci dëkk bi xam dëkk bi problème yi fi nekk te boo xoolee Koungheul bëri na ñoo xam ne ñu ngi investir ci lu jëm ci wàllu santé lu ko waral mooy gis neen dëkk bi mu soxlaa santé voilà bokk nag gis-gis ci côté boobu bokk niñ ko gisee muy que ni mbir yi dafa war a gën a yomb ci population bi ñu gën a am jàppandal ci wàllu faj ñuy sant nag bu baax waa sant de santé bi ndax quand même ñu ngi def liggéey bu mucc ayib ci côté boobu waaye nag ñun tamit dañuy ñëw pour apporter suñu contribution la may wax rek saa yi maa ngi koy wax sama cher aîné yi nekk foofu mais xam naa fii moom bureau bu ñu déplacé lay doon voilà parce tamit ñun ñëpp boo xoolee ba xool ci sant de santé bi lañ jaar fa la ñu formé sax laay mën a wax waaw di ci sant nag quand même le médecin chef El Hadj Malick Niang ak euh, toute son équipe sama grand frère docteur ali Ndao ak ñi fa nekk ñëpp ndax quand même encadré nañu encadrement boo xamante ne nii jàppale nañu ci bu baax a baax a baax ñu gis ne tamit war nañoo mën a apporter suñu wàll ci mbir yi tamit. nekkul ne tout le temps da ngay toog di xaar nit ñi boot la faaw yoo tamit nga indi sa wàll ci mbir yi lii moo ñu indil ñun tamit ñu fexe góorgóorlu ci benn côté ñi jàpp fii ñu jàpp fii dëkk bi gis ci seen bopp lii daal mooy objectif bi. laaj même accord maintenant bon moom xam naa nu ñuy tàmbal liggéey ci hôpital yi rek ah mm-hmm. ñu tàmbal liggéey ci hôpital yi rek parce que tamit santé moom moo nekk loo xamante ni amul heure amul heure mais nag heure yi nga xam ni maanaam mun nañ ni heure yi mooy heure régulier yi euh, mooy diggante huit heures ba quinze heures ñu jël pause mm-hmm. ba seize heures ñu def ñu reprendre ba 17 heures voire 18 heures mu nekk heure régulier mais wàllu santé moom ku ko xam-xam ni amul heure voilà képp ko fi munti ñëw aussi heure bu mu mun ti ñëw bu ñu contacter rek parce que ñun loolu mooy suñu lépp voilà yeneen activités yu des yëpp juste pour mun naa ni passe temps la ndax lii mooy suñu tey mooy suñu suba mooy suñu mooy suñu toujours donc loolu lañu ñu wu ku xam santé moo xam ni amul noflaay voilà donc ñu ngi fi daal pour képp koo xamante ne nii soxla nga am nga ab soxla bu jëm ci wàllu wér-gu-yaram à tout moment ñun nous serons pour def ci lu ñu war a def voilà alhamdulilah maintenant par rapport ak prix yi aussi mooy li may wax rek suñu objectif premier moo mos a nekk santé bu jege population bi jàppandal si ñoom moo tax quand def nañ jéego bu bari bari bari lu jëm ci wàllu prix yi surtout parce que tamit am nañ ni dëkk bi nit ñi soxla nañ faju voilà te li may wax souvent nit ñi bëgg nañoo faju waaye doole bi des fois du tax mu demee noonu donc bàyyi nañ xel bu baax a baax a baax loolu noonu te xam naa après bu ñu kiiyee ba am kii dinañu fexe ñi ñu jot ci lépp lu jëm ci wàllu tarif tarification bi pour faju bi mm-hmm. mais daal li ma mën a wax daal mooy fexe nañ ba mu gën a mën a jàppandal bu baax a baax a baax voilà te xam naa ni bu ci bu ci gars yi jotee dinañ dinañ gis bu baax effort bu ñu ci def pour que mu mën a gën a jàppandal si ñëpp incha allah mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw xanaa rek di leen wax nii déjà cabinet bi pour Koungheul la Koungheul nag boo ko xasee wax ku nekk mi ngi ci biir mm-hmm. voilà ku nekk mi ngi ci biir donc na ku nekk def ko biiru boppam xam ni ku fi am soxla tamit tëjaluñ buntu kenn ak ku mënti doon tëjaluñ la bunt ku fi am soxla tamit mun nga ñëw ñu xool nu ñuy fexee ba mbir yi jàppandal ba nga xamante ni sa soxla dina mën a am saafara loolu moo ñu tax a jóg loolu moo ñu taxoon di sonn ci àll ba pour wut xam-xam te loolu moo ñu tax aussi di sonn pour taxawal lii nii donc daal ñu ngi lancé appel képp koo xam ni Koumba Loua nga nga jàpp ci mbir yi xam ni mbir yi du du pour benn docteur ñu ngi kese nekkul pour benn ngaari kese pour pour Koungheul yëpp la te yemul sax ci Koungheul kese ndax suñu ambition weesu na foofu ñaan nañ yàlla mu dem ba ci sous région bi yëpp képp ku fi soxla faju nga xam ni boo yegsee Koungheul di nga fa fekk bërëb boo xamante ne nii amaana sa faj war na faa mën a gën a jaare yoon voilà donc voilà voilà voilà incha allah loolu daal bëgg nañ ko bu baax a baax a baax ndax tamit ñun dañaa jàpp ni dakaar rek du bërëb bu nit ñi war a mën a fajoo voilà loolu moom ñun yàgg nañ ko décrier sax euh, donte loolu moo nekk idée wu ñëpp sax même sur le plan administratif ak lépp nit ñi chaque instant ñu ngi naan mbir yi war nañ ko décentraliser war nañ ko fexe mu yegg fa mu war a yegg te ñun idéologie boobu la ñu yor te tout le temps rek lépp lu ñu mun mënti def dañuy fexe ba wëri ji li nga xam ne moom la nit ñi seeti feneen ñu fexe nu mu ñëwee fii gën a jege suñu ay population voilà léegi nag loolu nag moom euh, dañuy ñaan yàlla rek yàlla gën ñu koo jàppandal ñëpp jàpp si xam ni lii mu ngi soog a tàmbali gaa mais ñaan yàlla mu dem ba toll foo xamante ne nii day nekk structure boo xamante ne nii maanaam ñëpp dañ ciy gis seen bopp. te mu gën a mën a soulager population bi parce que comme ni nga ko waxee rek autorités yi loolu mooy nekk seen maanaam seen premier objectif mm-hmm. mooy fexe ba population bi mën a féex féex boobu nag ñun ci ci tànk yooyu lañ nekk di ci dox suñu jéego comme ni ko ñeneen ak ñeneen di defee voilà comme lu ci des mooy jàppalante fexe ba population bi daal mooy priorité te mooy suñu engagement ci côté bépp fexe ba population bi am tawféex lu jëm surtout ci wàllu santé. ok dañuy jeex rek di leen def benn nit ku ne mbir tàmbal ko ah, yàlla teg na ci loxoom ñu dañuy jàpp ne ci tey rek ñu ngi yow ñu ngi doon rek ñëpp ci biir moom mu commencé réalisé ñëpp di gëm naa ne dina jàll pour baax moom pour mu tànn ci ginnaaw tànn ci kanam la tey dañu mën a def si ma pour ñu xam ne surtout ñu mën wala moom financièrement lii ñu mën ko xool. waaw loolu damay dañuy sant yàlla bu baax. ñuy njëkk remercier mooy d'abord suñu wayjur ndax tey bu ñu demee ba toog fii nii tey am fitu woo nit ñi ne ñëw leen wax ñu seen soxla ci yaakaar li yàlla xéewalee peut-être ci wàllu xam-xam ñu mën ci wut saafara suñu wayjur ñoo tax ndax ñoom ñoo ñu tette ñu wan yoonu école ginnaaw loolu aussi ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo def suñu xam-xam muy képp koo xam ne mos nañ jaar ci sa loxo rek. nga dugal si ñun xam-xam ne serait-ce benn baat boo ñu xamal wala benn conseil boo ñu mun munti jox mu jëriñu ci suñu àdduna ñu lay sant ci loolu ginnaaw loolu maa ngi sant ñu ngi sant aussi kilifa dëkk bi parce que tamit bu demee ba am cadre de vie bu ñu permettre ñu mën a jàng correctement ñoom ñoo ko waral parce que ñoo ko fi taxawal voilà ñu ngi sant aussi médecin chef bi wax naa ko sànq ak équipe bi yëpp. parce que tamit suñu encadrement bëri na si loo xamante ni ñoom joué nañ ko si. ñun tey bu ñu demee tey ba am fitu tey daw ak suñuy tànk ñoom jàppale woon nañu bu baax a baax a baax voilà parce que juste rek pour fàttali sama stage rural Koungheul fii laa ko defee. te bi ma fi ñëwee eh, El Hadj Malick Niang muy médecin chef bi dimbali na ma ci côté bu ne jàpp na ci bu baax a baax a baax responsabilisé na ma. dimbali na ma saa yu ma amee jafe-jafe mu jàppale ma si moo ñi nga xam ne ñoom laa fi fekk ñoom doctor Ndaw nga xam ni depuis bu ñu nekkee sax université ñoo ñu doon encadré dañuy tette dañu wan yoon bi te lu ñu xam ñoom ñu gën a dimbale gën ñu wan yoon parce que ñoo ñu jiitu woon voilà di sant aussi euh, suñu professeur Babacar Sine le commandant Babacar Sine mi nga xamante nii vraiment ñun amuñu fayam man sama bopp laa xam waaye xam naa ni li muy dimbalee Kounguelwaay yi man maa ci gën tuuti te loolu dama ko koy sante di sant yàlla ndax jàpp na ci suñu jàng déjà lu bari encadrement bi aide bi ci bépp côté conseil mais xam naa ne ci ab bu gàtt incha allah dinañu fexe tàmbali liggéey bi bénéficier wu vraiment ci ci ci li nga xamante ne nii moom lañ ci bëgg taxawal. incha allah voilà fu toll nii daal presque lépp yem na boo xoolee bëre nga xam ne fii fu mu toll nii suba suba suba sax mën nañu commencé. Mm-hmm. voilà mais nag mbir yi dépendre ci ñun kese. Mm-hmm. ndax tamit lu ne dafa am ay kilifa yoo xam ne ñoo ko mën. ñoo ko toll nii daal eh, suñu loxo mu ci maanaam suñu mbir mu ci loxo kilifa yi voilà kilifa yi yore réew mi déjà de ak tamit ñu kilifa yi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci ci dëkk bi nga xamante ne nii mun ñoo def dara te seen seen seen seen seen aval amuñu ko incha ko fu mu toll nii daal eh, ñu ngi xaarandi daal mbiri yem pour que ñu mën a entamer liggéey bi kon donc ñu lay gërëm baax de sant di gërëm ngaari yi nga xam ne ñun ñaa lañ fekk ngeen nekk ay fierté mm-hmm. nekk ay digne fils de Koungheul parce que ci nit ki nekk li nga man ak li nga am rek noonu nga mën a jàppale sa askan tey li ngeen def nii amoon na feneen fu mu gën a ëppee xaalis am na feneen fu coono bi gën a wàññeekoo mais ngeen préféré ñoo toog seen dëkk pour jàppale seen gox loolu lay wane rek ne bëgg ngeen gox bi li ngeen di yoote nii xam leen ne da ngeen ci am ndam bu bëree bëri bëri da ngeen ci yàlla mais da ngeen ci am leneen loo xam ni foogu leen koon kon donc ñu ngi leen di gërëm rek di leen jox naan ne incha allah jour bi xam ne dañu ubbi dañu fi ñëwaat ànd teg si yéen eh, ba mbir mi jeex incha allah waay waay jërëjëf